ay laaj ya jigéen di di laajte mu nekk luy bamtu mu aju ci deret bu ñuy gis ndax dafay bàyyi julli wala dafay sangu di julli li si jiitu mooy deretub règle mu nekk deret mu jigéen aju wa gis muy bàyyeekoo ci ruxum jigéen ci ay waxtu ñu xam yàlla sàkk deret boobu ngir xereñ ngir xale moom lay dundee ci biiru yaayam fa jigéen gisee deret boobu di génn ci moom loolu da koy jàppee règle ci lu muy tënk fu mu tàmbalee wala boog fu muy jeexee ci ay at deesul tënk tamit da ci gën a néew wala boog da ci gën a bari waaye fu ko jigéen gisee ci ay fanam loolu dafay nekk règle aada bu gën a bari ci jigéen ñi mooy juróom benn fan wala juróom ñaari fan dana xamee tamit ni laab na bu gisee ab liquide ndox bu weex di génn ci kanamam wala boog deret bi daal di taxaw ba kanamam daal di wow ka gis deretu règle dafay bàyyi julli bàyyi woor waaye dana fay koor waaye du fay julli deretub istixaada deret la bu jigéen di gis ci yeneen fan yu dul fan yu muy gis deretub règle la koy sabab mooy feebar wala sidit bu dog ci biir ruxum jigéen boobule dinañ xamee tamit deretub règle wala deretub istixaada ni deretub règle dafay ñuul am xet bu génnee dafay way te dafay dëll deretub istixaada dafay xonk nekk lu sew du am xet waaye dafay way bu génnee lay cosaan ci lépp luy génn ci ruxum jigéen ni loolu règle ba mbind ñëw di ko tuddee istixaada deretub dafa mel ni feebar ngir lay cosaan ci doomu aadama mooy wér kay gis deretub istixaada dafay julli dafay woor dafay jàppal waxtu bu nekk bu waxtu bu duggee may nañ ko mu daldi boole diggante tisbaar ak takkusaan ci benn waxtu yi ci ñaari wala mu boole diggante timis ak gee ngir woyefal buñ ko koy woyefal waaye dafay bàyyi koor bàyyi julli ci fan yi nga xamante ne dafay gis deretub règle kay gis deretub règle ak beneen deret budul deretub règle dafay dellu ci ñetti mbir benn bu nekkee xam na ay fanam dafay toog la tolloog fanam topp mu daldi sangu topp mu daldi julli bu nekkee xamul ay fanam dafay ràññetle diggante ñaari deret yi mu toog fan ya nga xamante ne xàmmee na deretub règle topp mu daldi sangu topp mu daldi julli bu nekkee nag xamul ay fanam mënut ràññetle deret bi dafay toog lu tolloog juróom benn fan wala juróom-ñaari fan topp mu daldi sangu topp mu daldi julli deret bu wasin deret la buy génn ci ruxum jigéen ci la koy sabab mooy am doom kenn du tënk nag bëre waayam wala neewaayam lu dul lu ci gën a bëre mooy ñeen fukki guddi jële nañ ci ummu salama mu ne jigéen ña doon gis deret ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañ toog ñeen fukki guddi dafay war ci jigéen mu daldi xër ngir xam àtte yi ngir mu daldi matal ay ak mbooleem jaamu yàllam ngir mu jot ngërmande yàlla jot payoorem fa aljana yi nga xamante ne moom xéewal la